waaw asalaamualeykum mbokki taalib yëpp mbokki jullit yëpp alhamdulilahi rabil alamin nekkaat nañ ci liggéey bi waaw ñu ngi nii ci décoffrage ci bërëb bu soxna su tedd si ci décoffrage ma ngoog ci liggéey bii nga xam moom la def ci bërëb bu soxna Aminta Gànnaar sëñ Fallou namoon nañ leen lool fukki fan juróom nag ñu toog ko rek di xaar lii wow ah kon de xanaa ñëwaat nañ waaw waaw waaw yëpp namoon nañ waaw waaw namoon nañ ko lool. léegi nag bu ñu décoffré ba pare foo ciy toll. waaw maanaam bu ñu décoffré. dugal dugal. maanaam ubbi dañuy dañuy raax comme que day plafond. waaw waaw waaw waaw raax ba yi suulu rek. raax ko. mu raax avant yi si biti. waaw. mu raax avant yi biti nag ba yooyu féete boor ñu doog commencé koo carrelé. daal di carrelé biti bi ak biir bi. waaw. buñ kàllee ba pare bunt yi. waaw ah. ak ñoom lay doon. waaw waaw. waaw ko defee buñ kàllee lépp ba tëj ko ak fenêtre yi ñuy ubbi. waaw maanaam bunt yi doog a ñëw ñu monté bunt yi. waaw ak ak parabar bi war bi ñu war a kii yaasin bi. waaw parabar bi waaw waaw ñu koy liggéey waaw ñu koy liggéey. waaw. waaw neen xëy na buñ tàmbalee yéen bu ngeen tàmbalee kar la bala ngeen a pare boo moytu mën naa yegg. Ah. waaw. am na tamit ku may laaj dimension dimension bunt yi ak euh, fenêtre yi ci aluminium. Hmm. mbokk taale bi ñu wax Birame Samb ak waa këram. est-ce que euh, ñu barkeeloo ko ñoom. waaw ñoom dañ ko bëgg barkeel bi ñu déggee liggéey ba rek te tàmbalaguñ ci dara lañ lañ lañ façon loolu. Ah, waaw kon nag kon nag kon nag mbokki taalibe yi. ku ne nañ ci duggal sa loxo. lii kat xéewal guñ sëñ Tuubaa ubbil la. bi ñu ko sarax. suñ tubaab ñu xool ba ci yàgg rek mu yërëm ñu rek sax ñu bëgg ñoo dimbali. ndokk <laughs> yégal ak jàmm. Baye naa la de. Ah, waaw kon nag Baye Fall yi ayca liggéey bi tàmbalaat na tey jii ci bis bii nga xamante ni mooy euh, alxamis fanweeri fan ci weeru euh, tam xarit euh, di jeudi 17 août 2023. Mm. sëñ Fall yàlla na suñu la fal cat barke borom tàkk xasde soxna yi tedd yi tëdd fii ñu ngi nii suñu jëriñ yëpp nag seen na Alioune Badara ñëwal liggéey bi tàmbaliwaat na jàmbaar soxna si gaan ah, ak mbokki taalib yëpp ñu ngi sant ñëpp waaw wallaay kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala jaa ngeen jëf cëy ah.